muy un jour au Sénégal un jour dans le monde tey jile fukki fan ak ñett ci weeru décembre bokk na ci li ñuy fàttaliku ñetti at ci ginnaaw atum 2019 euh, bés bi ñu yokkee courant bi fii ci réew bu Sénégal muy hausse officielle bu mujj euh, juróom benn ci téeméer boo jël jàpp fukki ci téeméer boo jël euh, bëri na ay mbootaay yu génnoon ci mbedd mi lu bëri yoon sax nag di ko naqarlu loolu la ñuy fàttaliku ak leneen ñu ànd ci ak Fatou ne dem fukki fan ak ñett ci weeru décembre 2011 ñuy fàttaliku njombe la amoon ci Italie ñaari doomi Sénégal di jaaykatu ambulant ñu soxleen balu fetal ñu faatu defkatu ñaawteef ba toll woon ci diggante juróom fukki at jàpp ak juróom-ñeent mu bokk nag ca extrême droite bu itali talaata la woon ca Florence yeneen ñett jële ci ay gaañu gaañu yu metti loole nag nguurug Italie ñaawlu woon na ko ba fa ñaawlu yem dibeer fukki fan ak ñett ci weeru décembre 2015 lakk gu metti nag amoon ci benn pavillon bu foire bu ndakaaru mu yema ak ñaar fukk ak ñeenteelu foire internationale ba di boole ay jaaykat yu bari yu bàyyeekoo ci réew àdduna bi lakk googee nag sapeur pompier yu Sénégal def nañu lu jege ñetti waxtu laata ñu koy fay dañoo mujj sax woolu sapeur pompier français yi nekk fi ci Sénégal ngir ñu dimbali leen ka daan buum di bu mi Saddam Hussein fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum 2003 lañu ko daal di rek teg loxo gannaaw ñaar fukki at ak ñeent yu ñu ne la jël na ko huit ma Irak ñu jàppee ko nag fa ñu naan Tikrit fa mu fekk baax féete ci bëj gànnaaru Bagdad waaye fanweeri fan ci weeru décembre 2006 lañu ko faat ci anam yu metti tey ñu taxaw ci fukki fan ak ñett ci weeru décembre 2019 ak doxu ñaxtu bu yaatu bu ñu amaloon ci Ndakaaru lu toll ci fanweeri mbootaay yu société civile euh, taxaw lànk ne Senelec nag lii mu def duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg muy facture courant yi yokkoon téeméer boo jël ñu yokk ko ba ci fukk loole dooroon benn fan ci weeru euh, décembre yokkute googee nag moo waraloon coow lu rëy loole tey ñu def ak taxaw seetlu ndax ku ne courant ni compteur woyefal kii ab kiliyan la tailleur la dëkk ca Parcelles yi di ci joxe xalaatam waaw ah, man maay fay courant bi par woyofal quoi laa koy fayee presque depuis deux mille depuis deux mille vingt ba léegi man courant woyofal laa koy fayee quoi. waaw comme par exemple li nga doon nga doon jënd deux mille vingt bi nii comme par exemple boo dugaloon quinze mille li nga ci am jamono boobu noonu jamono bi mënatoo si am léegi da ngay boo dugalee quinze mille yi presque ci li mu doon diire léegi xaaj bi lay diire xaaj bi lay diire léegi deux mille vingt jamono boo dugalee quinze mille da ngay dugal pare fàtte comme 15 minutes su ma ko dugalee nii jamono boobu lim doon diire ak jamono bi bokkatul mais dangay boo doon dugal léegi da ngay dugal 20 minutes ba 25 minutes la nga koy dugal te daanaka li nga mois bii nii maa ngi dugal maa ngi dugal 15 bi bu ma ko branché woon nii nga xool instant bi rouge bi leer na ma mu ngi signalé. weer bi ay machines yi weer weer bi kese kese rek dina te man 3 machines laa yor 3 machines rek ñooy daw te machine bii nii benn machine bi presque daw man ak booy bi rek ñooy dawal beneen booy bi li muy ñëw bëriwul te ci jamono boobu noonu boobu trois machines da doon daw ak kii beneen beneen machine bu fi nekkoon ak fer presque quatre machines la woon jamono boobu te jamono bi trois machines ñoo fi nekk man ak boobu ñoo pour lu ñuy dawal mooy loolu maa yaakaaroon ventilo bi la affaire ventilo bi presque gis nga ni mu poseeree nii presque deux mois yëpp taalu ko <laughs> métti na waa 112000 ñu ne yokkaguñ bu ñu yokkee fu ñu jëm. ay 75. merci beaucoup Fatou ak témoignage euh, témoignage yooyu Alaaji Malick euh, très rapidement gis nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo woyofal bi ñoom li ñu wax mooy euh, c'est vrai 2019 moo nekkoon hausse officielle bu mujj waaye nee na ñoom dañoo am dañoo nemmeeku ni courant bi dafa mel ni dafa gën a yokk ndax bu ñu jëndee nombre kilowatt heure bi dafay néew loolu par rapport ak li daan jënd avant. ah woyofal bi dafa mel ni dafa mujj diis mais bu ñu dellu see ci li nga xam ne mooy manifestation yi ñu fàttali 10 pour cent la ñu yokkoon ci euh, ci ci ci njëg ci tarifu lii di électricité bi mu am mouvement bu nga xam ne pratiquement euh, c'était tout le Sénégal qui était en ébullition ndaxte de Dakar à Fongolémi ñëpp dañu jóg di manifester nga xam ne mouvement ñoo lànk mm. ñoom ñoo déclenché woon lu ñu mel euh, fédération des boulangers ak yeneen association yëpp yi nga xam ne dañuy voilà imaam yeeg ñëpp rek dugg ci xeex bi pour que cette mesure-là soit abandonnée parce que le coût de l'électricité déjà dafa cheroon ba pare ñu ñëwaat yokkaat ci yeneen 10 cent daf doon gën a lompañal askan bi ak ñi nga xam ne surtout ci seen liggéey dañuy jëfandikoo lu mel ni courant woyofal bi dañu xamoon ni dañ jàppoon ni solution alternative la dina gën a oyof ci askan bi mais pratiquement ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo bu ñu jëndee dañuy xool ni bu ñu jëndee durée bi dafay gàtt trop euh, lampe bu xonq. te moo ne état bi dafa subventionné électricité bi courant bi dañ ko subventionné ngir bañ beneen yokk am beneen yokk am ci malheureusement euh, aujourd'hui il est clair que jusqu'à présent le coût de l'électricité coûte très cher au Sénégal il faudrait que ñu ci mesures yi nga xam ne tey ji déclaration de politique générale bi bi bi premier ministre def nga xam ne ci wàllu social am na ci doole trop ñu gestuwaale ñi nga xam ne ñoom ñooy ménage yi di fay électricité ndax yëf yi mm-hmm. tàng na lool merci beaucoup euh, Alaaji Malick euh, jërëjëf dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ànd ci ak Ibou Diouf